ci biir Afrique gii la ñu ko jëlee waaye dañoo am ñaari produit maanaam ñaari garab yu baax lool ci wér-gu-yaramuk doomu aadama bi ci njëkk nag moo di sangomaar sangomaar nag lépp luy ndoxum siti wala hémorroïde da koy dindi ci nit ki ba mu jeex tàkk raxas ko ci yow waaye du yem ci loole ndax am na vingt et un maladie maanaam ñaar fukk ak benn ci ay jàngoro yoo xam ne nit ñaa ngi koy sooxaale booy jël garab bii di sangomaar nag mën nga caa mucc waaye sangomaar it day yokku kattan waaye yokku kattan googee waa bio Afrique dañu caa am produit bu doy waar ñu koy wax ndaa tell ndaa tell boobu nag sunu mbokk góor ñi la soxal ñi nga xam ne dañoo néew kattan rawatina ndax ndaa tell boobu ku koy jëfandikoo sa doole dina yokk ba noppi te di nga yëg tamit ne sa dayo awra mi ngi yokk te doo gaaw a yëg sa bopp waaye moom ndaa tell nag produit yi nga xam ne moom la ñu ko deferee yépp naturel la maanaam amul benn produit chimique fii ci Afrique la ñu ko deferee rawatina ñambi bi nga xam ne réew mi xam nañu ko loolee mooy base bi ñambi képp nag mu bawoo ci réew mi waaye yeneen produit yépp ci dénduk Afrique yi la ñu ko jëlee waaye waa bio Afrique nag seen liggéey boobu dañ ca ànd ak mag moo xam ne ay atam romb na juróom benn fukki at bio Afrique nag ku bëgg a jokkoo ak ñoom numéro yaa ngi nii mooy 78 612 22 22 beneen bi di 78 273 33 33 kon ku jokkoog bio Afrique di nga ci am lu kawe sa njortu. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéene kay ñancoo Sadio ak waa Bayern de Munich le sournal bi fësal ca xët wu njëkk wa Sadio le titre ou le vide tey jii nag ñancoo Sadio Mané li ñu bëgg moo di jël coupe bi wala du ñu jël dara. coupe bi moo di lan Bundesliga bi nga xam ne tey jii la ñu koy tej ndax saison bii ñu nekk kad waa Bayern de Munich neexle wuñu ci ndax Ligue des champions toog nañu ca toog yu njëkk ya coupe d'Allemagne tamit toog nañu Bundesliga bi képp moo ci des seen toogaay nag beggandiwul dara tey jii li ñu bëgg te di ko ñaan moo di am ndam ci kaw koloñ ba noppi ñaan Borussia dortu mu nërmeelu ci kanamu Mayence match yooyu yëpp nag même heure la treize heures et demi la ñu koy jongante maanaam une heure bu tegalee fanweeri minute su fekkee Bayern de Munich nag am na ndam ci kaw Cologne Borussia mun daanu ci kanamu Mainz bu boobaa ñancoo Sadio Mané ànd ak waa Bayern de Munich dañuy dégg daali waaye Borussia mun moom match nul képp la soxla ngir dégg daali waaye waa Bayern li ñu jàpp moo de li amoon ci atum deux 2000 mën naa am ci at mii ñu nekk ndax saison 2000 2001 lu doy waar moo am ci bun liga ba ndax ci bëccëg bu mujj la ñu tolloon Bayern de Munich di xëccoo ak Bayer Leverkusen seson boobu wa Bayer Leverkusen match nul képp la ñu soxla woon ngir jël bu Bundesliga bi waaye dañoo nërmeelu woon waa Bayern de Munich am ndam jël liga bi li ñu jàpp nag moo di tey jii loolee mën naa am waaye journal bi tamit ñëw na ci ñancoo Sadio maane ak Bundesliga boobee la mu fa jongante ci ay match ak li mu fa dugal ci ay bit ak passe décisive ya mu fa amal Sadio football na lu toll ci vingt cinq match ñaar fukk ak juróom ci ay match ca Bundesliga ba dugal na juróom-ñaari bit amal ca cinq passes décisives loolu nag mën nañoo wax ne baaxul waaye li ko waral bokk na ci blessure bi nga xam ne sonaloon na ko moom ñancoo Sadio Mané waaye journal bi tamit ñëw na ci équipe nationale U20 bi nga xam ne jamono ji ñoo nga ca réewu Argentine di jongante coupe du monde tey ji nag la ñuy football sunu match bu mujj soxal phase de poule Colombie la ñuy jàkkaarlool match boobee nag ndam képp moo ñu mën a jagal kon nañu ñaan bu vingt et une heures jotee ñu am ndam ci kaw Colombie mën a yaakaar qualifié ci huitième de finale ya journal bi tamit ñëw na ci coupe de la ligue bu Sénégal tey jii nag la ñuy football demi-finale bi njëkk di dox ci diggante TFC Tëngéej football club ak Casa Sport match boobee tey jii la beneen bi nag suba la ñu koy jongante war a dox ci diggante stade de Mbour ak Njambur ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Paris bu Kylian Mbappé ak Strasbourg bu Habibou la journal bi fësal ci xët njëkk woon ñoom ñoom ñaar nag ñooy jàkkaarloo tey jii bu 19h jotee waaye ñaari club yi nag jege nañu lool seen mbégte bu dee waa Strasbourg bu Habibou Diallo benn point képp la ñuy wër ngir mentien saison bii di ñëw ñu football ci Ligue 1 bu France bu dee waa pari ànd ak Kylian Mbappé ñoom benn poñ képp la ñuy wër ngir dégg daali maanaam nekk champion foofee ci Ligue 1 ba kon tey match boobee bu nekkee match arrangement bu mu bett kenn ndax ñaari club yi kenn ku ne ci ñoom benn poñ képp nga soxla ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport marque dis bi tàggat Everton bu ñoom Idrissa Gana Gueye le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag waa Goodison Park lay waxal foofee nag mooy statut Everton dimanche bu bërn mëf lañ fay dalal waaye Everton li ñu bëgg moo di am ndam ngir officiellement ñu mën a maintien des ci Premier League bi bu dee Bournemouth mi ñuy jàkkaar lool moom maintien na ba noppi déwén incha allah ci Premier League bi lay football waaye Everton li ñu bëgg moo di dalal leen am ndam ci seen kaw mën a dëggal seen bopp ci Premier League bi loolee tax na nag Mark Dies mi ngi wax ak supporteru Everton yi nee na leen yéen ñi nga xam ne yéenay teew ci godi seen Park de yàgg ngeen ñoo jàppale waaye dimanche lañ ko gën a soxla gis nañu nag seen taxawu ndax da ngeen ñuy pousser di ñu jàppale boole ci match yi ñuy am waaye dimanche moom soxla nañ leen lool waaye journal bi tamit ñëw na ci Declan Rice moom nag ma ngay football ca West Ham gone gi dafa bëgg a jugee ca West Ham benn club nag jamono jii fa la bëgg a dem muy Arsenal journal bi nee na moom noppi na sax ngir déclarer loolu officiellement xamal ñëpp ne leen Arsenal laa bëgg dem ca Mikel Arteta ndax moom bëgg-bëgg moo di football Ligue des champions te nee na Arsenal club bu ko neex la waaye West Ham ga mu nekk li ñu bëgg ci doomu Angleterre bi moo di cent millions de livres sterling waaye moom gone gi ci boppam dem Arsenal moo ko gënal yoogoon mi ngi ci journal bi képp koo xamante ni toog ca Liverpool gën a lu la noppi na ngir ubbi la buntu bi xam ngeen ne Liverpool déwén incha allah du dem Ligue des champions Ligue Europa la jëm te jour yu bëri nag Ligue Europa neexut leen waaye yogoon club nee na leen képp ku bëgg a dem noppi naa ngir ubbi la buntu bi jàppal la sab saak ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Enrique Cerezo le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa kii nag mooy président wu Atlético de Madrid yàgg na fa lool nag ndax def na fa ñaar fukki at waaye président yi jot a jaar ci Atlético de Madrid googee moom moo ëpp lu mu fa jël ci ay coupe waxtaan bu yaatu nag la séq ak marka yéenekaay becc na fa ay kàdduy mbégteem waaye becc na fa tamit ay kàdduy naqaram fi mu ko njëkkee nag moo di ci ñaari final Ligue des champions yi nga xam ne ñàkk na ko ci kanamu Real de Madrid bi ñu doon njëkk a jàkkaarloo ma nga doon amee ci Lisbonne match boobee Atlético de Madrid moo mëne woon 1 ci dernière minute bi ci la Ramos égalisé ñu dem prolongation Real de Madrid gañe ko ñeenti bal ci benn nee na bis boobee dañu maa sàcc maa waroon gagné match boobee ñaareelu final bi ca Milan la doon amee waaye match boobee 1-1 la jeexee woon ñu dem tir au but Real de Madrid gagné ko nee na ñaari match yooyu yëpp man maa ko waroon gagné jël Ligue des champions bi. ñaari final yooyu naqari na ma lool waaye ci atum 2013 nag am naa ñaari mbir yu ma neex lool ndax bi may gagné Liga Santander bi damaa dem ca kamp Nou fekki fa Barcelone jël Liga Santander bi ci kawam waaye ci atum 2013 boobu tamit dama final coupe du roi ak Real de Madrid ca Santiago Bernabéu gañe ko ñaari bal ci benn ñaar yooyu moom neex na ma lool. waaye man nag li ma bëgg moo di saa su Atlético de Madrid jàkkaarloo ak Real de Madrid am ndam ci kawam loolu moom mooy li ma gën a neex ci sama àdduna. ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Harry Kane la journal bi fësal ca xët wu njëkk moom képp nag la Carlo Ancelotti mi tàggat Real de Madrid bëgg ngir mu dem kujje ak Karim Benzema ci attaque groupe Real de Madrid nekkatul xale am na vingt neuf ans waaye contrat bi ko lëkkale ak Tottenham atum deux mille vingt quatre la war a jeex te moom nag ay mbiram jafewut Carlo Ancelotti nag moom képp la bëgg jamono jii boole ko ak Karim Benzema ñu ànd doxal waaye tey jii nag Real de Madrid googee dañuy football waaye jamono jii nag attaquant Real de Madrid yëpp nekk ñu ci forme mennum Rodrigo Goes képp moo ci nekk à cent pour cent bu dee Vinicius moom du bokk ca match boobee ndax wéregul bu dee Benzema moom dem na ca Séville waaye nekkul à cent pour cent mën nañu koo football mën nañu koo bañ a football tamit menn Brandon Rodrigo képp nag moo fa nekk bu 17h jotee nag Séville la ñuy jàkkaar lool benn match képp nag moo am tey jii ci Liga Santander ba Asensio tamit mi ngi ci journal bi moom nag dafa bëgg a jugee ci Real de Madrid te wax na ko njiitu club boobee ndax li mu bëgg ci temps de jeu waa club boobee mënuñu ko ko assuréel te li muy laaj cib xaalis it waa Real de Madrid mënuñu ko koo jox kon ndogal li mu jël moo di jugee ci Real de Madrid jamono ji nag offre yaa ngi commencé daanu rawatina ca Premier League ba club yu mag ñoo ngi koy bàyyi xel ba ci Paris tamit ñoo ngi bàyyi xel Asensio ñu jugee Madrid wutali Barcelone fek fa esport Juan Laporta mi président wu Barcelone le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag dafa séq waxtaan bu yaatu ak ñaari journal yi nekk ca Barcelone googee muy esport ak Mundo waaye kaddu yii nag la becc ci esport nee na naw Nou sportif yi mooy sama dund ndax fii dama fe yàgg lool bi ma ñeenti at laa commencé ñëw ci kamp Ndaw sama maam laa doon àndal mu jàpp ci samay loxo boobee dëgëraguma lool sax booba léegi nag maa ngi fii ci Camp Ndaw kon Camp Ndaw sama dund la président Barcelone bi mooy yëkkati kàddu yooyu waaye nee na stade bi fekkee naa fi lu ne ndax seetaan naa fi Cruyff muy doxal seetaan naa fi Pep Guardiola tamit muy doxal ci biir terrain bi waaye laaj nañu ko bit yi nga xam ne fekk na la nga toog di ko seetaan boo ci doon tànn yi la dàqal ban la mu ne bit bi nga xam ne Cruyff dugal na ko bi Barcelone di jàkkaarloo ak Atlético de Madrid bit boobee neex na ma lool waaye bit bi nga xam ne tamit Lionel Messi la Pulga dugal na ko bi ñuy jàkkaarloo ak Getafe bit boobee tamit neex na ma lool waaye bu ñuy wax wàllu bit moom nañu génne Lionel Messi tegee ko fële ndax bu dee bit bu rafet ak bit bu am solo Lionel Messi li mu ci dugal bari na lool kon bu ñuy wax wàllu bit Lionel Messi moom nañ ko tegee fële Juan Laporta mi président Barcelone moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Bravo Juan Laporta la fësal ca xët wu njëkk wa ba léegi waxtaan ba mooy wéy fii moom nag nee na Camp Nou Spotify mooy sama àdduna waaye tamit mooy sunu àdduna ñun ñi nga xam ne dañoo bëgg Barcelone la Laporta moo yëkkati kàddu yooyu moom nag mi ngi fàttaliku ba léegi Cruyff mi nga xam ne jour bu mag la woon ca Barcelone googee def fa jaloore nee na doomu pays ba bi nag jaloore ji mu def ci club bi du ma ko gaaw a ndax joueur bu mag la woon journal ñu bëgg su fekkee waa liga bi def nañu ko mu di lan ubbi leen buntu bi ñu mën a xaatimal ay jour contrat li ñu bëgg moo di Ronaldo Araujo ñu inscrit ko moom contrat am noppi na waaye ba léegi enregistré guñu ko ak gone gii di Gavi li ñu bëgg moo di enregistré ñaar ñooñee ba noppi songu mbiru Lionel Messi ngir mën ko xaatimal contrat. waaye loolu nag pour mu am fa waa Liga bi nangul leen seen i bëgg-bëgg muy waa Barcelone ànd ak seenu président di Juan Laporta. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve rawatina Maximiliano Allegri le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñaari match yi ko dese ca série A ba li mu bëgg moo di gagné ko ngir wéy di am yaakaar mën a dem Europe loolee la waa Juve bëgg te Maximiliano Allegri nag ñaari match yooyee mën naa nekk matsam yu mujj ak club boobe di Juve li mu bëgg nag moo di am ca ndam président wu Napoli tuddu De Laurentiis tamit mi ngi ci journal bi moom nag woo na Luis Enrique mi nga xam ne doomu Espagne la woo na ko càmbar ay mbiram ne ko alo Luis ndax mën nga ñëw tàggat sama club jamono ji nag waxtaan bi door na De Laurentiis li muy bañ moo di waa Paris jiitu ko ndax Paris tamit ñoo ngi wër entraîneur te dañoo bëgg Luis Enrique li mu bëgg moo di jiitu ca dossier boobe fexe jëlee doomu Espagne bi ca Espagne yóbbu ko ca itali mu tàggat Napoli loolu la journal bi xam xamle. ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Inter rawatina Lukaku la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa final bi Inter am tey jii doomu Belgique bi la ñu yaakaar ngir mu ànd ak ñoom doxal Atalanta Bergame la ñuy jàkkaar lool waaye match boobee tey jii bu ca Inter amee ndam rek déwén incha allah kenn du ko nettali ligue des champions ba ndax officiellement dañuy luka Lukaku nag la ñu yaakaar ngir mu ànd ak club bi doxal journal bi tamit ñëw na ci ñenn ci ay joueurs yoo xamante ni foofee ca Italie la ñuy football waaye soo moytuwul nag ñaari match yi des ci Serie A bi mooy doon seen match yu mujj ak seeni club bu dee waa Juve ñaar ñi moom soo moytuwul ñaari match yi des mooy doon seen ñaari match yu mujj ci club boobee di Juve di Angel Di Maria